mbokk internet yi dal leen ak jàmm ginnaaw ñu bëri fu mu toll nii ñu ngi waxtaanee wàllum local yi ci élection maire yi nga xamante ni naka ci Sénégal jàpp nañ ko ci janvier deux mille vingt deux ñi nga xamante ñooy waa parti démocratique sénégalais bokk naka ci a parti boo xamante ni traditionnel la euh, fii ci Sénégal te itam am nañu nag loo xam ne dese nañu ko ni ñu koy daal di waxee nag màggitum jinne goo gis dese na ay ngalaju ñoom waa PDS nag ñi nga xamante ni ñu bëri jàpp nañ ne dañoo jeexal naka ci wàllum politique ndax Karim Wade mi nga xamante ni bàyyam daf ko bëgg a samp ngir mu jiite naka parti bi waaye itam nekk na ci sax ñoo xam ne dañ ci frustré ba tax sax ñu jóge ca parti ba dem seeti ji leneen bokk na ci Oumar Sarr mi nga xam ne dafa sax jaaree dem ca APR ba ñu nommé ko fa ministre bu yàggul dara moom Abdoulaye Wade naka fan yee waxoon nañu fi ne jóge na fii ci diwaanu Sénégal dellu ca France ca Versailles nga xamante ni fa dal daal di nag nekkoon na ab autorisation koo xam ne moom la doon xaar ci njiitu réew bu France di Emmanuel Macron mu waroon ko signé nag ci avalu président Macky Sall deux ans ñu daal di ko fi ne exil forcé fii ci diwaanu Sénégal waaye nag dem na ca mujjantal ga moom itam ñu dégg ne daal di ne nag yolleeku ndànk dem ba ca Qatar mi nga xamante ni nag fa doom ca nekk di Karim Wade foofee nag ca Doha ginnaaw ay at yoo xamante ni moom itam Karim Wade mën nañu ne ab exil forcé dafa daal di def ginnaaw ba ñu ko génnee prison ca deux heures du matin daal di koy dépêcher ab avion privé bi mu yóbbu ko nag ca Qatar ca Doha googu nga xamante ni nag ab protocole moo tax mu daal di fay toog loolee nag ëpp na ñeenti at moom Karim waa kenn mënu koo teg gët fii ci diwaanu nag euh, Sénégal rawatina nag ne moom ci boppam ngir nit yi mën a jot ci moom sax ay jafe la ñu bëri sax ñu ngi naan moom Karim Wade maar dafa dem ca Doha nekk itam ci euh, prison ndax nag gisuñu fenn foo xam ne wax na fa gisuñu fenn foo xam te itam génn na fa ci ab vidéo lu dul nag ay communiqué ak message yoo xamante ni ñoom waa PDS ñoo bëgg a gëmloo nit ñi ne eh, ki nga xam ne mooy Karim Wade moo ko bind saa su ne ñuy dégg ne Karim moo ngi waaj a ñëw Karim nee na lii Karim ay oto ñu daal di nag campagne def ay yu demee noonu waaye boobu ak kenn eh, gisu ko moom baayam naka dem na nee naka ci local yi nga xamante ni moom la ñu daal di mën moo tax mu dem seeti Karim Wade ngir xool ñibbi seen dëkk naka lañ koy eh, daal di naka defee nu mu gën a gaawee ndax ñu jéem a daal di naka rassembler waa parti bi di PDS ndax local yi naka mën nañ fi am am dara te local yi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal nag mooy déterminer élection présidentielle yu atum 2024 yi naka la nara dal di tëddee kon rek Karim Wade nag war a nekk ak candidat fantôme faaw rek mu ñëw fii ci Sénégal ngir sax ngeen ñi nga xamante ni ah, ñoom ñooy nag militant yu PDS yi gëm ne nag ne parti démocratique sénégalais mi ngi existé ba tey ah, bañ a doon nag li nga xamante noonu ne ko nit yi di ko gëmee fu mu mooy ne parti bi dee na